naka démb. lii di euh, cour d'appel dafa joxe li nga xam ni euh, moom moo di euh, résultat provisoire yi. kii di euh, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye am lu tolloo ko ci 54 virgule 28 pour cent Amadou Ba am 35 virgule 79 pour cent Idriss Seck am 1 pour cent Khalifa Sall euh, presque 0 virgule 59 pour cent environ côté yooyu. Mm. mais dafa am ñaar ñoo xam daanaka ñoo si gën a marqué daana ñëw si Amadou Ba ak euh, président Bassirou Diomaye Faye mais dama bëgg nu ñëw si ñaar ñi Idriss Seck ak Khalifa Ababacar Sall ñoom ñi nga xam tey jii daanaka Dakar seen base la woon. ba ñuy wax li nga xam mooy élection législative élection maire yëpp Dakar seen base la woon tey jii Khalifa Sall mënul am 1 pour cent Idriss Seck élection présidentielle yu ñu génn moom moo jëloon lii deuxième tey mu ñëw mënul am sax 2 pour cent lan moo indi changement si ñaar leader yooyu ba mënuñu génn li nga xam nag moo di 1 pour cent yi. waaw ñenn ñi foog na dañoo àgg si période de saturation politique. Mhm. waaw jeexal nañu jeex nañu seen disons seen seen seen jamono ni muy weesoo. ñi ñaa ngi koy firndeel si président boo xam ne mu ngi am 44 ans. Hmm. waaw nañ ko jàppee noonu te aussi ñi ñenn ñi ci ñoom du ma tudd mais def nañu ay erreur politique. Hmm. waaw léegi nag am na erreur comme ni ñu wax en politique les comme lan ah. xëy na doo doo boo junjee. daanu hmm. xam xam kan yan. yan mais am na ñoo xam ne posé nañu acte yoo xam ne sénégalais yi dañuy jàpp ni affaire wor la voilà waaw cest à que dañuy jàpp ni yéen constat wu leen ci li ngeen di wax wala li ngeen doon wax dëmb jëfewu leen ko tey. loolu la waaw sénégalais yi nag fi mu toll fi ils sont très matures waaw yeewu nañ trop kenn mënu leen dugal ci yenn yi. Euh, peut mooy justifier. 1 mhm. pour cent yi nga xam ne Idriss Seck am na ko. Mhm. Khalifa Sall am absolument absolument. 0 0 0 90 mais donc ça veut dire que ni base politique yu ñu amoon dañu ko perte. waaw cest à que fi mu toll fii euh, peuple bi moom moo jóg. Mhm. sonn ne li ñuy régime bi teg dañ si sonn donc ñun kenn lañu am yaakaar. mooy projet bi donc kenn képp koo xam ne bokkuloo si projet bi rek duñ la fay dal daal c'est ça ça le problème waaw. ñoom ils ko ils leur carrière politique derrière eux wax ci côté bi nga xam ne moo di taxawu Sénégal. et Barthélémy Dias dans tout ça ah, ñu si bëri jàpp ni moom aussi dafa commencé am problème ci wàllum politique ndax gis nga daanaka euh, Mermoz Sacré-Cœur bi nga xam ne base la perte na ko bureau de vote mu daal di koy perte Dakar aussi mu perte ko en tant que est-ce que moom aussi nekkul di am problème si biir ëttum politique bi. mais loolu effectivement Mm-hmm. am na ñu suffisamment de de de de d' intelligence. Mm-hmm. pour vraiment ñu analyser ko après ñu seet vraiment de manière objective. Mm-hmm. n'est-ce pas et courageuse ñu ne waa lan moo war a résultat bi. bu ñu ko gisee léegi ñu seet ñu ko joyante rek. c'est tout. Ba nekk candidat bu président Macky Sall taboon ñu si bëri doon wax seen diggante rataxul mais yàlla def na dem nañ ba àgg si élection yi Amadou Ba jël li nga xam ne nag mooy deuxième ñu si bëri naan dafay des biir APR. ñu si bëri di ko na dem créer li nga xam nag moo di partem bu bees ñu si bëri di wax ni moom mooy chef de l'opposition mais tey jii booy xool euh, ci code électoral lu mu wax mooy pour nga nekk chef de l'opposition il faut nga am li nga xam nag moo di parti amul baax dommage amul si daal dikkaat ci tukki président Macky Sall mën am et lan mooy doon ëllëgu kii di euh, Amadou Ba ci ëttum politique bi. waaw ëllëgam wax dëgg yàlla nag lu dem si wàllu ëllëg moom sunu borom waaw <laughs> waaw ñun dañuy foog rek. Mhm. mais dama yaakaar ni amatu Ba ak li ko ñenn responsable APR yi def. Mhm. yaakaar moom mu war a mën a toog APR. waaw man de bu ma koy digal. Mhm. n'est-ce pas génn APR ak ñi nga xam ne ñoo ko jàppale woon APR ñu dem créer seen parti bopp. waaw waaw parce que ñu bëri ci biir APR dañ ko noonoo dañ doon wax clairement ñi ñi di dégg ne Amadou Ba sunu candidat. léegi nag yow nga bëgg a ñëw di ànd ak ñooñu noonu dëmb mënu nekk xaritu tey. donc li ma koy dëggal mooy bu wóolu boppam na dëgël boppam vraiment évidemment fekk may nañ ko mu am jot di def loolu parce que dafa am lu bëri yoo xam ne da ko war a ragal ak Sénégalais yi. muy lan waaw muy lan mooy alalam boobu ñu koy tuumal fan la ko jële ñu ne fonctionnaire euh, milliardaire. te musu ko wet weddi musu ne déedéet fonctionnaire milliardaire boo ko doon Sénégal gi sàcc nga. fonctionnaire milliardaire boo ko doonee si Sénégal gi sàcc nga donc nañu wax ñi ñu alalam bi fan la ko jëlee waaw. bu leeralee loolu yëpp ba ñu xam ne kii amuluñ ko topp si wàllu njuuñ njaaj hmm. eh, boobaa xëy na ñi ñu mën a yaakaar si moom hmm. waaw hmm. mais loolu moom na ko régler ak sénégal yi exactement maanaam euh, gouvernement en place bi bu ñëwee commencé liggéey moom aussi dina woo Amadou Ba nu ne ko carrément bi nga génnee impôt domaine ñu si bëri di wax milliardaire nga avant nu lay bàyyi nga dem maanaam ngay créer sa sa sa sa yëf bopp wala nga des biir APR il faut nga justifier sa am-am bi fu mu jógee loolu nga bëgg expliquer mu la waaw waaw du question sax nga def sa yëfu bopp yow yaa xam ñam nañ def hmm. parce que nag c'est du hmm. waaw pour nga xam nga man dama wax ne xam nga am na benn parquet financier hmm. boo xam ne yooyu lay toppatoo waaye man bu ma sañoon créer yi benn moom la ñu dellu si waat. ñu indiwaat kër léegi nag ñaari coppite rek moo ci am benn bi ñu def ko double juridiction maanaam bu ñu la condamné. Mhm. première instance nga mën a war a mën a def appel. ah nga def recours. waaw mais deuxième coppite bi mooy lan mu bañ a yem rek ci ñi nga xam ne ñooy gérer euh, alalu euh, administration. Mhm. alalu public bi déedéet nañ ko si étendre ci képp koo xam ne sénégalais nga ngay personne publique. Mhm. wala ngay personne privée ngay personne morale wala ngay personne physique. parce ñi nga xam ne ñoo nekk si public bi mais ñooñu def seen yenn tappale yi di changé yenn kayit yi di rafetal ba nga xam ne yow boo ñëwee contrôle sax xëy na doo gis yenn yi xaalis boobu ñuy rawale nag dañ koy dem jox benn personne privée boo xam ne mu nga fële nekkul si nguur gi nekkul si administration hmm. léegi nag kooku di doxal di kii nes ce hmm. donc moo tax ma ne léegi nañ ko képp Sénégalais boo xam ne gis nañ la hmm. ngay dépassé alal boo xam ne njort dafa ñaaw ci ni ñu ko amee hmm. vraiment ñu oo la quoi doo yoon la fii si Sénégal hmm. dëkk bu ndoolee nii ah comme ni ma ko waxee da nga gis koo xam ne euh, tablette aspirine mille francs mënu ko jënd mënu ko jënd am na koo xam ne mu ngi hôpital wasin na ñu teg ko foofu moom ak liir bi parce que xëy na amul cinquante mille francs yu mu fay pour génn léegi ñuy gis télé ñoo xam ne ñu ngi puukaru ay jigéen surtout takk seen or ba mu fees del n'est-ce pas ànd ak ay jigéen ay góor yoo xam ne dama leen jàpp ni sax dana xaw a ñàkk fay mhm. ah ngeen génne ay liaas cinq millions di ko may ay nit dix millions ngeen ko may ay nit comme ça toute la journée et cetera mais kooku procureur war na autosaisir mhm. ne ko yow kaay sénégalais nga léegi alal bu mel ni sénégalais am ko fi danga mu nga expliqué ñu foo jële alal bi waaw mhm. bu dee expliqué nga ba mu leer ba ñëpp xam ne lii sa alal la waaw bu boobaa mhm. mu ngi noonu même bu dee sa alal la dafa am pratique yoo xam ne il faut ñu dindi ko fi mhm. parce que il faut de l'éthique de la morale parce que yow mi di def loolu si biir télé kii nekk fi ak méttitam ak souffrance am wax dëgg yàlla yaa ngi koy gën teg méttit waaye yu bëri dañ ko war a seetaat quoi moo tax ñu war di delloo aussi si diir suñu diine bi waaw moo war a nekk suñu cëslaay la du ñu république islamique de. Mhm. waaye nag fondement yi effectivement ci diine bi la war a doon ko mhm. exactement ah, ñu si bëri aussi am na benn affaire boo xam ne ñu ngi koy repré représenté li nga ñu ngi koy reproché li nga xam moo di presse bi. lu ci mel ni RTS moom mi nga xam tey jii daanaka daa waroon tëddee njaaxaanaay si lépp loo xam ne dafa nekk wàllum traitement information ah, gis nga euh, bërki démba président Bassirou Diomaye Faye bu muy def conférence de presse lii di RTS daf ko boycotté ñu si bëri di wax ni moom aussi war foofu aussi kër googu war na bokk si ñoo xam tey jii soppite war na fa mën a am nga kii di Racine Talla dafay des biir RTS ba tey wala aussi est-ce que du am benn sanction boo xam ne dina ko infliger kii di euh, Madiambal Diagne par exemple ak ki nga xam ni euh, moo di Cheikh Yérim Seck non bon par exemple pour euh, Cheikh Yérim Seck xaw ma bon mu ngi wax ay yenn wax yi ko mhm. bon moom euh, c' est que c' est un c' est un manipulateur averti. Mhm. bon Madiambal Faye aussi presque même catégorie la. Mhm. mais moom ñu ngi koy tuumaal ni dafa am alal bëri. foog naa nit ñi dañuy gis set alalam boobu fan la ko jëlee quoi. bon maintenant pour Racine Talla mais may naa la feex semaine rek dootu fi nekkati. ah bon ah waaw waaw dañ koy. lu tax loolu non dañ koy balayer quand <laughs> dafa am loo xam ne amul naataable quoi <laughs> massa amu fii. Uh-huh. waaw may naa ko une semaine daal. waaw maa ngi ñaan jomaay mu may ko peut-être une semaine ou quinze jours. mais uh-huh. dañ koy balayer moom ak ñu bëri ah bi aussi am na rôle boo xam ne euh, dam koy ñaawlu. Uh-huh. presse officielle mais presse mooy yéen ñi am. Euh, kii digital yi numérique yi parfois même numérique yi mais da ngay gis ñuy invité ñoo xam ne vraiment c'est pas normal mhm. il faut relever la qualité n'est-ce pas de vos invités mhm. nest pas da lay da gis koo xam ne dafay bëgg saaga Ousmane Sonko mhm. waaye amul fit saaga ko xam nga lu may def day invité koo xam ne wóor ko ni bu ñëwee rek kooku dina saaga son Sonko daanaka dangay ngay saaga Ousmane Sonko par procuration donc aussi yooyu ni ngeen def attention yu bëri ñëpp laay wax presse plan kiw numérique yi ak officiel et cetera vraiment nañu moytu yooyu quoi parce que sénégalais bi ñu bëgg mais du question gouvernement bi rek dana bëgg sénégalais bi aussi mu am rupture ci comportement sénégalais ñu bañ di ay saaga ndey ay ay ay werante et cetera loo xamal si nit wax ko mais loolu dafa war a ndey dafa war a dañ moo tax boo tu peux être supporter de Ousmane Sonko. Hmm. mais man boo nekk supporter de Ousmane Sonko bu ma la déggee nga saagara man bokkatoo. exactement bokkatoo si sama ñu may déglu quoi. Hmm, hmm. waaw parce que quand sunu ndey yi am nañu importance. sunu ndey yi am nañu solo te képp koo xam ne da nga saaga ndey rek mooy jàpp na ni da nga ko saagante sa ndey. parce que koo saaga ndey même boo ko déglu sax si xelam mu ngi lay saaga ndey. vraiment ah voilà. quand loolu euh, muy démb information bi nga xam ni euh, l' observateur moo na ko baaxee muy eh, kii di Adji